bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa saxbihi ajmain mbokki jullit yi ñoo ngi dellu si di sant borom bi subhaanahu wa taala di sàkku si moom dimbal di ko ñaan mu jéggal ñu sunuy bàkkaar musal ñu sunuy ayu bakkan ak sunuy ñaawteef di ñaanal Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na barkeem yàgg a wàcc ci kawam di dellu si jotaay yi ñu amoon si téere bu màgg bi di thalathati al usul lil imaam al mujaddid cheikh islaam mu mel ni ne si jotaay bi weesu Euh, jeexaloon nañ li nga xam ne mooy cosaan bu njëkk bu màgg bi nga xam ne des na ko laaj jaam bi ci bàmmeel bi dees na ko laaj jaam bi ci bàmmeelam nit ki buñ ko dencee comme nuñ ko waxee woon ba malaaka yi dikkal ko ñetti laaj yu màgg yi nga xam ne dinañ ko ko laaj ana kan mooy sa boroom ana kan nga doon jaamu bu ñu paree ci laaj boobee ñaareelu cosaan bi lañu war a dugg tey Euh, comme niñ koy faral di defee dañuy jàng li ci borom téere bi wax buñ soo jógee dellu si si ak faram fàcce muhammad ibn abdul wahab rahimahullahu taala cheikh al islam continue di wax ni al aslu thani macrifatu diini l islaami bil adilla wa huwa al istislaamu lahu bitawxid wal inqiyaad lahu bittaaca wal baraatu min alshirki wa ahli wa huwa thalathu maratib al islaamu wal imaanu wal ixsaan wa kullu martabatin laha arkaan kon loolee mooy bindu tey bi di dugg gi ñuy dugg ci ñaareelu cosaan bi kon borom téere bi bi mu noppee cosaan bu njëkk bi eh, nekk gi mu nekk cosaanu cosaan yi ndax mooy xam gi jaam xam boroomam subhanahu wa taala ak weetal gim koy weetal ci di ko jaamu yeneen cosaan yii di ñëw si e, cosaan boobee lañu aju ndax xam gi ngay xam sa diine mooy diine ji yàlla subhanahu wa taala wàcce ci ñun ñu war ko jaamu moom yàlla subhanahu wa taala ci kaw diine jooje tënku si diine ji nga xam ne moom la wàcce ci ñun kon ñaareelu cosaan bi mu ne maarifatu diinil islaam bil adilla mooy jaam bi xam gi mu war a xam diine jii di diiney lislaam waaye xam-xam boo xam ne ma nga tegu ci ay tegtal lañu waxoon jiital ko ci ne eh, sunu diine jii diiney xam-xam la nit ki la muy jëf dafay tegu ci xam-xam comme nañ ko tuddee woon ci eh, laytaay yu njëkk ya ba waxoon sa yàlla subhanahu wa taala aaya bam sa wax ak al imaamu al buxaari lam sa teg yàlla subhanahu wa taala bam waxee ne faalam annahu laa ilaha illa illa allah wastaghfir li dambik al imaamu al buxaari teg sa ne fa badaa bil ilmi qabla al qawli wal amal loolee romboon nañ ko yàlla ba mu ne ne na nga xam jiital li nga xam ne mooy xam-xam lan ngay xam amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku moom yàlla subhaanahu wa taala alimaamul buxaari mu ne mu tàmbalee ci xam-xam dara balaa wax balaa jëf kon xam moo jiitu ñaareelu cosaan bi it diine lislaam jaam bi moo ngi koy xamee ci naka ci ay tegtal du loo xam ne tatone la wala loo xam ne al toppe la da ci eh, demee rek di toppe waaye déedéet danga koy teg ci ay tegtal yu wóor tegtal yu wóor yooyee mi ngi jóge ci téere borom bi subhanahu wa taala ak ci njàngalem yenente bi sallallahu di sunnaam moom la yàlla subhanahu wa ngir mu leeral diine ji ay waxam moom yenente bi sallallahu alayhi nga xam ne dafay ñëw sax di leeral alquran kon alquran ak sunna ñooy tegtal yi nga xam ne ñoo lay leeralal sa diine yow jullit amma koo xam ne dafay wekk diineem si al toppe ak nit ñi di def rek nga gis nit ñi di def rek ngay def loole moom lu dangereux la loole moom euh, comme nañ ko waxee woon ci ki nga xam ne nii malaaka yi dañ koy laaj ci bàmmeel bi mu naan na haa haa na ko xadis ba indee hmm? la adri sami'tu an-naasa yaquluuna shay'an fa qultu hmm? comme nañ ko rombee woon lam lan lay wax di yuuxu di yuuxu naan xamuma xamuma man daal dama déggoon nit ñi di wax rek may may di nit ñi di wax ma koy wax nit ñi laa gisoon ñuy def nangam rek ma koy def waliyaadu billah loolee la ñuy tuddee ak taqlid maanaam toppe hmm? nit ñi def rek nga def te xamoo lu tax ñi def nit ñi di wax rek nga topp sa la ñi di wax di ko répété comme seku te xamoo la nit ñi di wax nit ki jullit bi lépp lu muy wax mbaa di ko di ko def na si am firnde na sa am tegtal bu leer bu jóge si borom bi subhanahu wa tegtal bu leer bu bu jóge si sunna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di njàngaleem nga doog a def mbaa nga wax kon yow jullit cosaan bii nii di xam gi ngay xam sa diine muy diine lislaam mi ngi tegu ci kaw ay tegtal loo sax borom téere bi ne maarifatu diinil islaami bil adilla ñaareelu cosaan bi mooy xam gi ngay xam diine lislaam waaye xam-xam bu teg bu tegu ci kaw ay tegtal ay tegtal diine jooju mooy lan mu ne wa huwa al istislaamu lahu bi tawxiid al buñ ko waxee ñu ngi ko jëlee ci baatu aslam ci làmmiñu arab mooy bu fekkee nit ki dafa jébbal boppam dara jébbalu ci dara dal di wommatu comme ni ko euh, cheikhuna cheikh saleh alfawzan xafidahu llahu taala mu ne al islaamu min aslama li cheyi ida nqaada la aslama nafsahu lil qatl eh, boo demee ba jébbal sa bopp ñu ray la waliyadu billah Eh, maanaam nga daldi bàyyeeku hmm? mu ne fa aslama nafsahu li shay idan qaada la jébbalu si dara mooy nga joxe sa bopp ba jeex si maanaam bàyyi sa bopp yow moomatoo sa bopp al islaam loolu lay firi mu ne kon al islaamu huwa islaamul wajhi wal qasdi wa niyati lahu azza wa mooy jébbal gi nit ki di jébbal boppam Hmm, jébbal jubluwaayam ak yéenam lépp jox yàlla subhanahu wa taala ne moo tax yàlla subhanahu wa taala wax ni wa man axsanu diinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muxsin wattabaa millata ibrahima xanifa mu waxaat ni balaa man aslama wajhahu lillah foofee yëpp da ngay gis ne yàlla subhanahu wa dafa njëkk jëfandikoo baatu jébbalu fii ñeel ko moom rek lañ koy defal moom yàlla subhanahu wa taala looloo taxit ci ngay déggee njuumte ñi nga xam ne dañuy jël baat bi di baatub jébbalu di ko defal mbindeef ne man si diw laa jébbalu diw laa jébbal sama bopp maanaam yow moomatoo sa bopp maanaam say jëf say wax say lépp ci diw moom nga ko nga ko nga ko jébbal kookee yàlla rek lañ koy defal euh, saxaaba di saxaaba yu tedd ya yàlla leen yàlla subhanahu wa gërëm daanuñu jëfandikoo baat boobee maanaam jébbaluñu woon seen bopp eh, yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla lañu jébbal seen bopp yàlla lañu jébbal seen bopp di wommatu ci ay ndigalam di ko jaamu di toroxlu hmm? donte na yoon woowu yenent bi sallallahu alayhi moo leen say tegtal moo leen di jàngal moo leen di tette waaye jébbalu moom yàlla subhanahu lañ koy def yàlla ne balaa man aslama wajhahu lillah ki nga xam ne moo jébbal boppam ki nga xam ne mooy borom bi subhanahu wa taala kon moo tax mu ne al istislaamu lillah jébbalu ci yàlla subhanahu wa taala si di ko wéetal bi tawxid te mooy wéetal ko moom borom bi subhanahu wa taala si jaamu giñ koy jaamu te loolee moom mooy maana tawxid maana tawxid moom la wax fii al inqiyaad buñ ko waxee mooy di wommatu ci di ko topp moom yàlla subhanahu wa taala si lépp lu mu lay digal waaye di bàyyi lépp lum lay tere am bu fekkee da ah, jël buum takk sa baat jox ko si ki nga jébbalu naan ko foo ma yóbbu rekk ma jëm fa kooku da koy topp si lépp fu mu la diri yóbbu la fa nga jëm fa lu mu la jàjj tere te téye la nga taxaw sa loolee mbokki jullit yi yàlla rek subhanahu wa lañ koy defal jaam bi si yàlla lay jébbalu jox ko boppam ba jeex tàkk si lépp lu mu koy digal mu def ko waaye lépp lu mu koy tere mu bàyyi ko wa mu ne albaraatu min ashirki wa ahli waaye mu set wecc set wecc jeex tàkk si li nga xam ne mooy bokkaale bàyyi ko set si waaye ak i ñoñam ñoñi bokkaale it albaraatu maanaahu al inqitaa wal ictizaal Cheikh Saalih nee na euh, set wecc si li nga xam ne mooy bokkaale albaraa mooy set wecc dogu daal di beru nga nekk nale bokkaale nekk nale wal bu'du an shirk nga sori li nga xam ne moom mooy bokkaale wa ahli shirk ak ñoñi bokkaale doo yam rek ci ne yow doo bokkaale waaye même ñooñi bokkaale da nga leen di sori da ngay set si ñoom wecc da ngay génn si ñoom moo tax mu ne nit ki du doy rek mu ne dafa jébbalu euh, ci yàlla subhanahu wa dafay wommatu si ay ndigalam te du set ci ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi weddi lañu nekkee sori leen génn si ñoom ba set wicc loolee faw dafay am tànk ñett yooyee amul mu ne lii nga xam ne mooy al islaam euh, sa dëgg-dëgg euh, amul bal ñeenti yi Cheikh Saalih nee na laa tu'addu musliman xatta tattasifa bi hadihi sifaat deesu la jàppee jullit feek ñeenti yi nekkul ci yow ba sa jiitu mooy al istislaamu bi tawxid jébbalu ci yàlla subhaanahu wa taala si di ko weetal ñaareel ba al inqiyaadu lahu bi taaca anam di wommatu ci yàlla subhaanahu wa taala wommatu si ay ndigalam si di ko topp waaye ñetteel ba albaraatu مما يضاد التوحيد ويضاد التاع الطاعة وهو الشرك waaye set wicc sori li nga xam ne mooy safaanoo ak wéetal ko moom yàlla subhanahu wa ak safaanoo si topp côté mooy mooy ko di bokkaale ñeenteel ba albaraatu min ahli shirk waaye nga set wicc sori ñi nga xam ne ñooy ñooñi bokkaale di bokkaalekat yi nga sori leen kon ñeenti yi mu bi taxqiqi hadihi alsifaat takunu muslima boo dëggalee yow jullit bi ñeenti mbir yii si ngay nekk nag ab jullit kon ab jullit mooy borom téere dafa wax ne xam sa diine diine jooju mooy lislaam naka ngay nekkee si lislaam joojee la la wax fii mu ne huwa listislaamu lahu bi tawxid wal inqiyaadu lahu bi taa wal baraatu min alshirki wa ahli kon boo bëggee définir lan mooy lislaam définition baa ngi noonu boo bëggee xam kan mooy jullit jullit mooy ki nga xam ne mbir yooyee eh, daje na ci moom cheikh saaleh nee na wa kam min insanin laa yacrifu macna alislaam liannahu lam yetacallam hada alshey walaw qiila lahu ma huwa alislaam lam yujib jawaaban saxiixa bariwaat na si nit ñi ñoo xam ne xamuñu sa dëgg dëgg dëgg lan mooy lislaam ñenn ñi dañ koy woote woo waaye sa dëgg dëgg xamuñu lislaam googee ñuy woote woo ak lislaam googee ñu naan ci lañu nekk mooy lan sa dëgg dëgg xamuñu ko nee na koo ci waxoon définiral ma lan mooy lislaam du la jox définition bu wér du la jox définition bu wér loolee mbokk jullit yi ak gàttañal la ne jullit bi dafa war a góorgóorlu cosaan bu mag bi te mooy xam diineem te xam ne dañ ko koy laaj si bàmmeelam lan moo doon sa diine sa diine diine joojee nga xam ko te mooy lislaam sa diine mooy lislaam waaye lan mooy lislaam nga xam dëgg dëgg dëgg lislaam mooy lan nga taxawee ko nanga ko war a taxawee te comme ni ko borom téere bi wax waxee fii lislaam bi nga xam ne moo tax ñu naan lislaam bi yàlla subhanahu wa taala yónni jaamam ba di yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te lislaam joojee lañ lay laaj ci sa bàmmeel mooy bi dajale ñeenti mbir yi dajale ñeenti mbir yi ñu bamtuwaat ko jébbalu gi nit ki di jébbalu ci yàlla subhanahu wa si di ko wéetal loolu moo jiitu sa lislaam waaye di wommatu si ay ndigalam ak moytu ay tereem ñetteel ba set wicc sori li nga xam ne mooy safaanoo ak ñaar yooyu di wéetal yàlla subhanahu wa ak mooy yàlla nga set si sori si loolee nag buñ ko waxee comme ni ko euh, aljaami rahimahullahu taala di waxee wax ñu ne nit ki du mooy yàlla waaye si yoon woowu boo si nekkee eh, du ñàkk du ñàkk nga tarxiis wala nga juum nga mooy yàlla subhanahu wa waaye saa soo ko defee da ngay tuub delluwaat da tuub delluwaat ci yàlla subhanahu wa taala tënk si li nga xam ne mooy yoonu topp ko ak moytu li nga xam ne mooy mooy ko ñeenteel ba mooy set si ñooñi bokkaale ndax eh, loole mooy dëggal maanaam ngëm gi nga xam ne ni woote woo nga ko ak tënku nga tënku si diine ji ndax mënoo tënku si diine lislaam ba noppi dëggal ko ba pare di def lu safaanoog loole mooy di jonjoo ak jaxasoo ñi nga xam ne ñooy noonu yàlla yi subhanahu wa di bokkaalekat yi ak ñi yàlla subhanahu wa ñoom suba ak ngoon di gërëm lañu nekk mbaa nga say nekk yow di jaxasoog ñoom loole moom dafa safaanoog loolu te dina ñëw romboon nañ ko si Euh, li nga xam ne mooy laytaay téere bi li nga xam ne mooy masalat al wala wal bara nit ki sori gi mu war a sori euh, moykatu yàlla yi ak ñi noonu yàlla subhanahu wa ak péete gi mu war a féete ak ñi nga xam ne ñoo bëgg yàlla subhanahu wa taala euh, ak ñi gëm yàlla subhanahu wa taala si gàttal kon ñeent yooyu bu ko jullit bi dajalee bu boobaa lañuy kookee lañuy tuddee jullit kookee lañuy ñuy tuddee al muslim kon cosaan bu màgg bi di xam gi nit ki di xam diineem na xam ne diineem mooy lislaam te lislaam mooy lii ñu la wax fii ci gàttal borom téere bi nag ne wa huwa maratib léegi diine joojee war nga xam ne ñetti martaba la diine joojee ñetti martaba la diine nekkul ci benn martaba maanaam benn wàccuwaay benn degré waaye nit ki bu fekkee dafa jébbalu ci yàlla subhanahu wa wax baati seede yi ne moom jullit la na xam ne dugg na ci martaba bi gën a yaatu martaba bi gën a yaatu mooy al islam comme nañ ko waxoon léegi léegi nag am na yeneen ñaari martaba muy ñett moo tax mu ne fii wa huwa maratib al wal imaanu wal ihsaan martaba bi gën a yaatu bi gën a yaatu nga xam ne képp ak lislaam képp ku wax baati seede yi même naafiq yi nga xam ne sax dañ doon feeñal lislaam ña sa biir comme ni ko Cheikh Saleh ibn Fawzan xafidahu llahu mooy al islaam ñoom ñëpp muslimuun lañ leen di tuddee waaye am na beneen étape bu gën a kawe boobu ak beneen cercle bu gën a xat cercle bu yaatu boobu nga xam ne nit ki bu duggee si lislaam dafay góor góorlu ngir yegg si cercle boobee nga xam ne moo gën a xat ngir yegg si martaba boobee nga xam ne moo gën a kawe mooy li ñuy tuddee al iman al iman mooy martabay ngëm yàlla subhanahu wa yegg si darajay ngëm yàlla subhanahu wa taala looy am na ay ponk dina ñëw si biir dinañ ko faram fàcce beneen ba ba sa topp mooy al al ihsaan mooy cercle bi gën a xat ci biir al iman nee nañ la lislaam moo gën a yaatu ci biir lislaam nit ki góorgóorlu ba yegg ci al iman ci biir imaan am na beneen martaba bu gën a kawe boobu beneen daraja muy darajatul ihsaan nit ki fexe ba yegg sa te mooy daraja ji gën a kawe ci diine comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa jàngale woon jibril dina ñëw si biir inchaa allahu taala ana lan mooy ponki eh, benn bu nekk si ñetti martaba yii nii moo xam lislaam la wala al la wala al benn bu si ne moo tax borom téere bi teg si ne wa kullu martabatin laha arkaan benn bu si ne si yii am na ay ponk jullit bi dafa war a xam diineem ni muy xamee diineem si nii ñu ko séddalee xam lan mooy al islaam ak i ponkam la mu ëmb waaye xam lii ji al imaan ak i ponkam ak la mu ëmb si biir waaye xam lii nga xam ne mooy al ihsaan martaba yooyu nga xam ne mooy maratibu diin di martaba yi nit ki di toxu si diine di góorgóorlu saa su ne si eh, woote woo googee mu woote woone jullit la mu góorgóorlu si martaba yooyee ngir yegg eh, yasa gën a kawe kon loole mooy euh, bindu tey bi di tàmbali bu nga xam ne ni tàmbali nañ ko si ñaareelu cosaan bi si ak tënk ana mooy lan ak euh, mu ëmb si ay maratib dinañ ci taxaw ci benn bu ci nekk ci al islaam mooy lan ak i ponkam waaye al iman ana lan mooy ay ponkam waaye al ihsaan kadalika wallahu taala aalam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain